الشيطان waxtu yi mu ngi sori te sering Sam waxtaan bi mu war a waxtaan moom njëriñ li xam moo xam orang nii kenn ku jëm daal di naan te war nga ko bàyyi kenn dem kon li mu ko waroon a njëriñ saako si bu lañ koy tëjee di li sëriñ bi wax ci diggante suñu wax saxee ak sëriñ Rakke bu suuf dañ ciy firndeel ay bayit yoo xam ne maa ngi ko sëriñ wax saxee ñëwoon ci seen Rakke bu suuf maa ngi si ko. ngaan googee wala ngaan googee ay yoon yoon la. bari na lool yàgg na lool bari na ci ay xam-xam yu bari yu ci xam waaye nag jotaay bi du ko mate ci ci wax ko lépp kon day daal di yàq waxtaan waaye ñu xam nga ne diggante suñu Cheikh Ahmed ak suñu Mbacké ñu ñëpp xam la diggante bu ñu daan boo xam ne ñu ganee suñu Mbacké ko doy mu dellu sëñ Mamadou Bousso muy taawu suñu Mbàkke Bousso dafa bind ay bayit yoo xam ne da koy jëmmal naan gi xam la ko ci xam la ci suñu rafetlu wax ci moom ay biir dana feeñ ci biir bayit yi bu ñu ko jàngee noonu bu ñu ko jàngee ba noppi danañ ko teg ci loxol seen Cheikh Gueye ndax bu sëriñ Saam defee waxtaanam ba noppi danañ jox sëriñ Cheikh Gueye kàddu gi mu teg ci li mu ko war a teg bu boobaa dana yëkkati kër gi teg ci loxoom dana ko tas lekk ko suñu bàtt bu ko toog kon loolu yàlla yàgg yéen ñi ci am ba taxawal ko moom yéen ñi yàlla yàgg euh, koy jégalu ci coono yi ak yoon yi nga xam ne dafa xaw a naqari mu am coono lool waaye bëgg-bëggam ak yeneen ëmb na yooyu yëpp kon naa koy sant bu baax a kon bayit yi yi ne moom la ñuy seeral toogaayu seen saam xam ne du gan سليم وسلمان بشرى لنا لما أتانا العين بحر عارف والملاذ افخم الشيخ أحمد من أقر بسبقه أدرى مشائخ عقله ومنه جمع الشريعة والحقيقة موضحا سنن وسائق قبله ويعلمه فرحت بلاد مرضها وتباشرت بقدومكم في خط عن شيبتهم اهلا وسهلا بالايمان ومرحبا بقدومكم طوالها اذ يقدم ما ساق لي هذه الزيارة جهرة في منزلي إلا القضاء المبرم شكرا له ما دمت حيا طالبا منكم دعاء حالي يروم وينعم ɗon ɓe magata cencanta cenculoha cencandi e piga seeki fomi delle tandu ɗonna ka pasare nan ko waro pasare ko ñebbo kanko wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu bismillahi rahmani rahim الحمد لله المسلم المسلم أقول الصلاة والسلام على سيد البشر محمد بن عبد الله رحمه الله وسلم دينا وبمحمد بن عبد الله نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وبالكعبة قبلة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هدي له لعل حول ولا قوة إلا بالله الحق قال ورد الكلمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Thank you.

Terima kasih. ndeyjoor ñu ngi wax ci suñu borom di tudd cër dañuy wax ak doomu aadama bëgg mu dégg li ñuy wax wax ñu ko tudd alquran day saxalal suñu borom tabaraka wa taala ay cër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu sallallahu alayhi wa sallam di wax na yemal qiyam bu safaram ñu ne bon xiif xiifu ko loolu suñu borom tabaraka wa taala ne aadama génneel wàllu safara ci sa sëb yi tibb lu bari sotti ci safara safara di wax eh, di dal naan zit nii zit nii zit nii suñu borom dolli ma dolli ma dolli ko ay yoon dañu ko waroon jox jeex safara continuer di tawat di jàmbat tax bëgg ñu ko dolli suñu borom far fab tànk lay jooram nekkoon nii ci safara safara daal di ñeel ko ñu jarwoo ñu sànni ci kaal naan fab fat fat doy na doy na doy na daal di tiit sago sagoom di rafetlu ci ndox. ci yooyu bu ñu wax suñu borom subhanahu wa taala ngir ñoo xam li ñuy wax rek la ci jublu waaye dara am lu wala dara suñu borom suñu dara li doomu aadama dara mbindeem dara lu ma bind du malaika du jinne du nit du seytaane du leneen ñëw leen dara. léegi tamit ñun ci moom moo tax ñoom da cee. suñu borom nag ci loxo yi ndeyjooram ñu mën ne ñii ak jële la ñu jëm. te amul soxla ci la ko càmmoñ nii ngay wàllu safara sama yoon nekku ci ah dama ne ko kon ñuy jëm àjjana ana lu ñuy jëfe mooy ñoom nga xam ne dañu ma gëm gëm sama yonent yi ma yónni ci ñoom topp seen ndigal waxtaniku li ñu leen tere di leen mu ne ko ñuy jëm safara nag mu wax ko safaanu loolu kon lépp a ngi tàmbalee ci ngëm ay ji ma ñu koy wax في القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقولون أولئك هم حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما Entende? Ele puxa uma coisa, uma vez puxa uma coisa, kenn du ay gëm lu ñuy aaye di wax nama munu la kenn du way gëm ñi muy teg ñoom ci seen loxo dugal ko seen xol mu fees lu dul الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من عبد بوت جل سير خد نفسي في رقبتي بوت waaw loolu nga xam ne ñun ñu tuddee yàlla ñu tàmm seen sàmm seen xalaat adduna yëpp jeex bëggatuñu dara gisatuñu dara dundatuñu dara xoolatuñu dara seen ci yàlla. loo ci def ci dañuy xam mag gi suñu borom mag ak foor gi mu foor rëy gi mu rëy te doomu aadama mu xam-xam ñu ci loolu seen malaayika yi mu teewal malaayika yëpp teewal aadama ne leen ak ci borom ndax du ma seen borom ñu ne waaw ah xam ah, kaay ma ne ñi nga xam ne nit yàlla lañu ak ñi gëm ak ñi nar a fexe ñëpp dañ koo wax ci coobarew nangu ko ñi nga xam ne nag buñ dikkee ci adduna dañuy jëfe leneen fas leneen wax ko ci ñu forcé leen doomu aadama bi nga xam ne dafa gën tëj nga xam ne bu ñu tuddee yàlla xolam yëngu mu tiit fàttaliku wala woowu mu fàttali engagement boobu mu defoon ci wàllu suñu borom dafa lépp dañ ko koy laaj. nga gis seet li ne ci kanamam li ko teree bari lool te mënu la bàyyi lépp liñ ko digal bari lool te mënu la jëf lépp seytaane bari doole lool nekk ci diggante bi bakkan nekk ci diggante bi mu seet li ci kanam wax muy génn àdduna mu seet ne. bu génn adduna natt yu bari dana xam ci sukuraatam liitaange yu bari dana xam seytaane dina bari doole ndax moom suñu borom dana ko jox kàttanu mu jàpp ci ay surgaam mbooloo yebal leen ñu ñëw ñu gisee ci kanamu jëmm ji nga xam ne xelam ak xalaatam lépp jël na ci adduna mu ngi xalaat fa mu jëm jóge ci aadam jëm ci aadam bu mu xamul dara dara dara xamul lu aadam ba di demee te xamul lu mu koy fekki te xamul lu ko koy dal ñooñu dañuy di fekk ndey ci faatu baayam nijaayam maamam ak bokkam yi fi jóge yëpp ñu ñu di ko seen dara mel na ñoom toog ci kanam naan ko ah diw sama doom bi ma bëgg ci ñun day jaar nañu fii nga jaar ba weesu ko xam nañu lépp ndax gis nañu lépp léegi lii lay musal lenn dong la mooy dee naa ci diine yi yemoon ndax mooy diine ci kër ci diine yi. fekkee ne jëmm jëmm joo xam ne ndimbalal yàlla la ñu dumóoyu ba mu dumóoyoo ñu daal di dem ñeneen ñu mel ne ñoom dellu si taxaw ci kanam da ko ay suñu ci xam ni mën a ci lool fii nga toll tolluwaay bu tiis la jaar na ko xam na li fi nekk xam ni li fi musle moo di nga dee rek ci diine nasaraan neel dee naa ci diine nasaraan moo gën ci diine yi ndax diine nasaraan moo foddi lii ne Ibnu Moussa indi woon foofu nag doomu aadama bi bu amul ndimbalal yàlla dana gis solo bu amee ndimbalal yàlla nag malaayka yi yërmande yi dal di wàcc si ñu wàcc seen seytaane yooyu daw ruux bi nag tàmbalee waaj feqali ko ci baaraam yi tànk ci ndey jooram dikk ruux demee woon ñi nga xam ne orange bii noonu la ndox mi demee ci biiram dugg wet bu nekk ba bàyyiwul fenn tàmbali nag ci dajaloo dajaloo ci dënn bi doomu aadama bi cëram yi li ciy mujj ten moo di nopp yi dégg bi bët yi jamono yooyu gisatu mënatul yëkkati benn cër foofu bët yi moom ngi xool ca kaw cëram jëm léegi maanaam si tey bu fekkee néew toll na foofu am na ay mandat yu muy wane su fekkente ne euh, gis nga tapis bii di génne ci ginnaaw maanaam yu wut xaw mel ne kuy dinañ gis naan kanam gi tam soppi ko bët yi lu weex leen feeñ bu boobaa ñu jàpp dinañ ñaaw waaye waxtu boo xam ne dinañ def ko ba xaw a gën dara bi ko tukku mu xaw na nag ne seen xéewal boo xam ne xam na ne ci la jëm te moo ko moom mu bépp waaye amatul kàttanu dañal dara ruug gi mu fekk dal dënn bi benn cër yëngootul ak si ci sërëb ci bopp bi dugg mu ci gisatu dara ndax fekkee ak duratul faaxira fi axwaali laaxira imam Al-Ghazali radiyallahu taala anhu dana wax ne ruug gi bu génnee mu ngi toll waxa ruux yooyu ñoom dajale ci boppam lay génne. en tout dañ ne ci bopp lay génne bu mu génnee nee ñu di koy wër leer bu violet la xaw a xonq. parce que nee na pët cëpp xam ne seen ruux day gaaw mooy ñi nga xam ne génnewuñu tilim seen ruux génnewul tilim ci adduna ci jikko yu ñaaw ak wuuteeg di di jikko yi nga nga am jikko yu wuuteeg moom. jaar ci ndiiraan ay fii ay niir yoo xam ne ay roox lañu ñii daañu ko xam mu dem ba muy rooxu jullit muy rooxu yëfa dellu siwaat ci suuf delloo ci ba aras dellu siwaat nag ca place ba mu nekk moom jàlla jalaaluhu ay muy doxal foofu diggante moom doomu aadama bi ump na nit ñi moom rek a ko xam tabaraka wa taala nit ki bu fekkente ne mu ngi teewlu teewuwaay boobu bu dee teewlu teewuwaay boobu isa dukira laahu wajadat quluubuhum day tuddee yàlla rek yëpp xam daf koy daal di dem mu tiitee di jëkk gannaaw doomu aadama ne génn na àdduna ruux boobu di koy nit ki takk tax xam-xamam tax jiitam tax ak déggam dina génn ci adduna te du xamagum génn adduna wala li ndax aalam bi mu génn muy adduna aalam ba mu see daal di teg dafay niroog adduna ba lu mu daawoon gën a bëgg xelam dana ca dem moo tax bu ñu faatoo ci fan yu njëkk yi ñu di ko tax xel gën a bëggoon ci seet yi nga nit ku bëggoon gura wala suukar wala yooyu ci seet yi gura gi daf koy yëy déedéet waaye jëf jëf ji jëmale ci yàlla ruux la dafa am rawxaane yi ci foon yoo xam ne ruux la kon lépp loo xam ne yàlla sàkk na ko rek ci adduna ak fu mu doon loolu dafa am ruux li ñu sàkk day am ñaari yat yat di jëm ci mbindeef yi ruux ba di féete yat di jëm ci yàlla ci ruux ba di féete suñu borom dafa ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lenn lu yàlla sàkk lu dul fu mu toll rek ñu ngi sàbbal suñu borom loolu moo waral yàq xaram ndax li nga yàq dan ba tey nekkoon ñu di sabba tax bu ñu fagoon benn doon suuf dégg ni doon suuf yi di sabba ñu ko ëpp ko ba mu naaw toj bu nekk dana sabba ci xeer yow mi nga xam ne yàq nga te yàq mooy lan loo xam ne jëriñoo woo ko amul njëriñal adduna amul njëriñal nga rey ko nga yàq ko nga jëlee ko fi bu boobaa sabba yooyu mu doon sabba yow yaa ko soppi jëlee ko ci gën jàmm jëloo ko ci yeneen melo boo xam ne jëkki doomu aadama daf caa dugg ba àggati fu mu àggoon kon li ngay saxeel ki fi jógee ndax jëf yëpp malakuut yi la lañu malakuut yi jëf yoo xam ne jëf yi topp yàlla la malakuut yi la génn na aalamul mulki bi mu nekk nun dugg ci aalamul malakuut bu duggee ci aalamul malakuut nag kon ruux ga mu ngi siy dugg ruux boobu ñi nga xam ne dañoo nekk barkat dañuy lekk di naan ni ñuy lekk di ak ni ñuy naane waaye seenub lekk ak seenu naan wuute naag seenub lekk ak seenu naan ndax li ñuy lekk ruux la li ñuy naan ruux la ruuxu julli boo jël nit ki ci bàmmeel ruuxu koor boo jël nit ki ci bàmmeel ruuxu sarax ruuxu ak ruuxu hadiye ruuxu sikkar ruuxu fikr yooyu yëpp ay ruux la yow itam sa roox gi mooy dundee wu ndax màdd mooy dundee màdd bi nga taxawee kooku li mu bëggoon ci àdduna li tasliya loolu sax yéen a koy jëriñ li nga xam ne moom la bànneexu li mu bëggoon bu ko daan jëfandikoo ci àdduna roofu jëf ji nga jëf muy sax yi bu fekkente ne li ngay saxee ngis stratégie wala wala wala bëgg àdduna roof bi day laaj day day loof ba nga xam ne du am solo loolu bu fekkente ne nag euh, def nga ixlaas maanaam dëgg dëgg sellal ci li nga ko defal li ñuy am ñaan bu ndox sa xel bu di kàmm boo ko wàcceel mu ngi dugaat ko ko indi nga ñeene ko ko moom ruuxam gi mooy dund ca ruux jëf jooju wax ñu maratu bi ko def jëfi doom adam yëpp maratu bi alquran moo génn alamul marakut nekk alamul jamanut dana waxtaan ci dana nga xam ne dana teewlu xew-xew yoon bu ñu tuddee yàlla rek xam nga daal jëm ci jaar-jaar yi moo war a jaar xaq yi mu amee bi foore ñu am na benn jëmm boo xam ne suñu borom daf ko ci benn dën benn dund keroog bu ñu dajee suñu borom suñu borom ne ko jéggal naa la ci sama yërmande mu dégg na ko ah sa yërmande wala sama jëf xanaa mu ne ko sa jëf mu ne ko waaw mu ne ko waaw di ngay jaam da nga doon lekk ko la ko dox ba mën a jaam mu ne ko yow li nga doon naan ba tala jaam ko la ko dox mu ne ko yow kàttan bi nga amoon ba ci jaamu ko la ko dox mu ne ko yow ku la xiiroon ci jaamu jàpp dinañ la ko nooy si cër yi ba nga mën a jaamu ana ko ko doon sa xol ba ana ku la gëm loolu loolu lépp ku la ko mu ne ko yow mu ne ko bu ma tax yoon loolu yëpp nag ndax dana ci sa jaamu mu ne ko déedéet kon daal sax loolu ci ngay yërëm ñu jéem ko man daal defuma dara yow rek rek yaa def jéem ba ma bu fàttali ko fadailullahi alayhi fàttali ko ko war ak ni mu jafee ne ak yi ak xew-xew yu bari ak yi teew وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوة من الجابرين آية القرآن آية القرآن زادتهم إيمانا بدون يدهم بدون يدهم ملو يتوي موي إذا تليت عليهم آياته موي وإذا الله تليتهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوة من الجابرين آية القرآن اللي بدون waaw dafa ànd dafa diis dafa war dafa ëpp lu bare bare bare bare bare léegi xool lu mu gën a sete rek ci jikko yu bon borom du doy na mukk ci alquran ba doy ci alquran ndax alquran wax bi ak waa yi ci nekk du lépp a neex du lépp a naqari li neex dañ ko yëpp ba mel ne yaa ngi jàng moom li naqari dañ ko yëpp ba mel ne dugal nañ la ci biir mu gën ma sidina Umar radiyallahu taala anhu romb la benn waay mu jàng benn aaya rek mu xëm daanu ci suuf Muhammad du jóg naka noonu daan ko kibaaru saxaaba yëpp bu ñuy jàng alquran rek dañuy tàggoog seen sago tàggoog seen sago li ko waral xol bu set yàlla fekk nga alquran ndax alquran daf ñu jàngal dëkk ñu jàngal fikr muy ñaari forme jàmm yàlla yu bokk ci yi gën a foor alquran moo lay jàngal nanuy waaroo ci lu nekk lépp lu ñu gis rek adduna ak yi fi nekk yëpp téere la boo xam ne def dellatu waar ni shaay bi wax naan faqra kitaabal kawni kal qadimat nihi ayati rabbika fussilat tafsila ودع a فلا ربك انه لم تغني عن ان اليقين ثقيلا فقرا كتاب الكون jàngal téere bu mag bi nga xam ne mooy génn al qadimat nii ayaati rabbika da nga fekk ñu bir ni ci ak i kaw génnoon pour teel a tafsira ñu faram mu leer alquran ba gis rek benn mu meew suñu borom wala jëmam bu ñu waroon di diñ ci dara dana gis li ci wàllu si biir nekk ci maanaam fatara wax ni wax wax ñoom dañoo dëkk ci réew yoo xam ne yàlla suñu soxee ci li ñu xam amuñu yaru diine luy seen imam xel ñu ngi raisonné di xalaat di dëppale di jeexal am seeni aada yoo xam ne ci aada doomu aadama yi la bokk waaye bokkul ci aaday diine. ñu daal di koy am gis bu ñu ko gisee ñi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan ñoom gis takkara boobu muy mbir yu rëy a rëy mbir yu am am solo ndax ñu naan ko administration nationale suñu borom subhanahu wa taala bi wax moom ci alxuraan léeg-léeg dañuy def li ñuy wax tasliya daf di ko ñii di nekk li mbokk yoon tamit nañ ci jaare mel ne ku toog ak sa xarit nit waa jox au point de laata léeg-léeg nga toog ci bi yàq sa wala sa lu di di di demité naan rek lu ñëw ci seen xel ngeen wax noonu ngir euh, miinante mën na mën si ko wax mën nañu ko mën a waxee ngir daal kenn ku nekk jéem ubbi sa xol ubbi ko sa sa sa morom xew-xew yi nga xam ne yonent yi fi jaaroon ne moom di ko nettali léeg-léeg ci suñu amoon di ko wax léeg-léeg laay teel di nga xam ne laa ko bëgg a ko tëddee. ñoom ñooñu yàlla jiwal roy seen guddi moo ne dañu naan biir sallallahu alayhi wa sallam moo leen jëlee jiw. ana lan mooy xam ci loolu ndax dañ ci wàllu na ba kan jaa wal ba kan jaa jamii'an wal mursaluna ma'an ta'allamu aadaabal ibaadaat yi yonent yi ñu yónni ak ñu soog a yónni ñun ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen jàngee seen diine jaamu yàlla. xam nga dañ koy jaaroon ba dem. seen xiis sax ci ñoom bari leen di leen fexeel di leen defal lu nekk suñu borom di defal yonent bi tës leen ko wane ne lii du yow rek seen ay borom jaaroon nañ ci te defoon nañ lii defoon nañ lii defoon nañ lii di ko wan ci ñenn ñoo xam ne nee na ko du def li ñu defoon dana leen ko yem ci yàlla ñu di ko am ñoo xam ne di nga xam ne nag laata ñu ko sax di def trop dinaa daa wóor ko di ko wax ne leen ne ñii suñu wax naan sax ñu commencé ko amul avenir lépp maanaam dañ ko coupé indi bi tànn te yu muy dindi lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy waxtaan ci xarit ndax wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim dana wàcc ci yow alquran ngir nga biralal nit ñi li ñu li ñu wàcc ci ñoom ni mu defee saxaaba yi dégg na alquran dégg boo xam ne ñeneen ñi ñoom mënu ko ndax aaya day wàcc ñu juróom yi circonstance yi mu wàccee ak li xewoon ak jotaay bi ndax bu ca génnee li saaba yi li xamoon lépp ak am na yu bari yoo xam ne binduñu ko am na yu bëri ndax yan bi sa do ci doon am ñaar téeméer ak ak ñaar fukk ñu soog a tàmbalee dajale bi ko bind ndax yan bi am fu mu teree woon bind hadis alquran nag daf ñuy jàngal lu ñu gis rek ci ak ak tadakkur يوحنا الذين يكتمون الاحكام ويقعون على جنوبهم وينفقون في حق على ظلمهم دفني جانب القرآن دفني جانب خلق خلق mooy xalaat xalaat mooy li ñuy xamal yàlla zikru maanaam sikkar pour yàlla mooy li ñuy may ñu mën a ñett li bokk yàlla suñ ko waxee ci bagaas bi nag waxaale ci axyaay qul sabini inna nihayata simaali diini fi hadihi dunya xusulu lmaarifa wal unsu zikran bi ilahi maarifa واللمس من بعد دوام الذكر أما تعرف بعد الذكر niki day tàmbali ci di xalaat saa yu di xalaat di xalaat jéggi siraat ak taxawaay gis pénc ba ji mu ngi xalaat moom ci boppam ba mu juddoo ba li mu def doy na ngir saa yu bàmmeel ni mu yàggee dana lekk di naan di añ di reer di di ñetti li mu def dana ko doy ba nga saa di taxaw taxawul kañ la mu ji muy xalaat doomu aadama bi mu wala ñu ne ko diw faatu na mu ne diw nit mu xalaat ne diw mi faatu ne bu ma fi tollatee fukki at toll faatu bu ma demee dana ma laaj ne waaw ndax yow li nga ma gañe mooy li nga def ci at ndax boo ko jógee ba tey yaa ngi jaam kon de gañe nga ma ndax bu boobaa ndax danaa ko mën ne jaamu naa lu def naa lu bari lu rëy sa gannaaw ndax moom bu muccee bu ma dajeg moom ndax roo yi dañuy daje ci barka dama guñu àddina dama guñu safara pool yi misaal nañ ko li mu mel dañu mu ngi tàmbalee ca asamaan juróom-ñaar sa ak suuf juróom-ñaar juróom-ñaar sa lu ñu war a misaal la la mu gën a jaaxle fa ngeen ci waxtaanee ba tax nag li ne foofu yëpp yëpp yëpp yëpp a ñu deewoon ñëpp foofu ñuy xaar ruu yi li tàmbalee ci ñeenteelu asamaan ba ci suuf ruuj mooy ci xel bi ñoo koy occupé ñoo koy nekk. lëndëm ñu ba mel ni sëriñ xam ne ruuj yii dañ leen a firi duñ jóg mukk fi ñu nekk. bés bi duñ ci bougé leen feneen yii ru dañuy wëndeelu moo xam ñu texale wala ñu texewul li tàmbali ci asamaan ñeenteel si nag ba tax juróom-ñaareel ba mooy ruu yi nga xam ne ñu texe la dañuy leer nañ ñu teg ko ci ruu bu ci nekk bu ñu nekkee ba ngir nga mën a jëriñ ci sa morom ndax roo yi daañu di ziarante ngir nga mën a jëriñ ci sa sa morom fokk ngeen niroo ci ay ay jikko yonente bi salaa sallam wala ngeen bëggante yonente bi salaa sallam dafa ne man ahaba qawman xasira ma ahum ku sopp ay gaay yaa ñoom la ñuy boole fan na bis pénc ba mu ne man ahaba qawman fa huwa minhum ku sopp ay gaay yaa nga bokk sa ñoom ndax coppeel day boole ay nit day boole ay roo ba nga xam ne dañuy gën a jëriñante roo bi gën a jëriñ di gën a leer gën a set nga xam ne amul yenn jikko yu ñaaw nga xam ne moo gën a bari jikko yu ñu yonante bi ñu yónni ci moom day tëbb beneen roo nga xam ne bëgg na ko wala bëggante nañu te manqué na dara yi jot di ko gën a leeral mu mel ne hôpital boo xam ne docteur yi dañuy ñëw di faj yooyu yëpp lu ci nekk am na fu mu tegu ci kitaab bi wa sunnati وأقوال العارفين آه، وصوفية والروحيين وكان منك روجي حدوث الأول جيكوي بروم أك أه، جيكوي يرس دين يون تيمون ولا إمام إمام جيكو تقول يعني دوك ولا أولاك الإمامي روجي دي جيني بروم وما أقول أنا تاشي jikko yi ci ak transformation ak melaw yëpp bu demee nag léegi ba nga xam ne mooy place am ci barsax dañ soog a xam ne kat moom dee ba mu nga barsax xëy na ñi ko yóbbu ca bàmmeele sax àdduna bi donc di salal ko neen bu ñu ko tuuree ba dëgg ñoo ngi gën a dégg daal di mu ñu dellu jóge ci bàmmeel di ko doon suure moo ko roy ki nga bëgg wala bëgg ko wala tax nga gën a mën a jëriñoo ci ñoom. dañu wax ne ñi nga xam ne ñoo ñëw jikko ju bon ñëpp yow ak xiyam ñoom la ñu foogandoo dañuy àndandoo te ëppale sa jikko yow mooy jiitu ndax bi bii boo xam ne nit ñi ku nekk def nga da ngay jiitu ci topp boo jógee ba taxaw tuuti sa bopp di yàlla da ngay jiitu toog. te léegi ji boobu malaayka yi nga xam ne moo leen di fomb yóbbu ci li ñuy wax ak saa yi nag beneen suuf yow motu ma la ñu doon waxee la am waaw nag waaw yow xam nag ay maraaxil la boo déggee ñenn ñi naan kenn mënul kenn dara ndax kenn du tal sa morom ndax yow mooy sunu morom min axiihi wa ummihi wa abiihi wa sahibatihi wa baniihi ñàkk dégg ndax yawmal qiyaama dégg ñu seen tubaab yi seen qiyaamatu qiyaamataani soxraana maa fi kulla maa insaani wa ba'da al-furaagu fi nafa fi suuri laa yajma bi sako nit ki bis boo xamee adduna bi tukki ba ñu ëpp buuf te bu njëkk bi ëpp bi danay yàgg bu ko téye ñettalee dana xumb ba nga xam ne lépp lu doon dund dana tiit ba tàggoo ba doo xam ne foo nekk ñaa àll yi ñëwoon ci àll bi daal di tiit ba fekk si nit ñi jaxasoo ñoom ndax jaaxle géej gi day bax day tàkk si taxul ñuy wax boobaa nag jant bi ci boppam day lëndëm dañ koy lëndëmal lëndëmal biddiw yi booba la tiit ma lu seen sa morom doom ndax kenn xamagul loo nekkee waxtu woowu diggante boobu buñ ko passé doomu aadama yi am na ci yoo xam ne ci borom xam-xam yi yéen nangami at la yéen ñu leen yàlla rek ko xam naka loolu bu xamee ne ëpp nañu ko ba kenn mën a yëg ku dugal alayha saanin wala taw si rabbika nee ngi biir boobu itam ñii ne day sax ñeent fukki at loolu ko daal di nekk ne ci asuratul faatira ne koo xam ne kii dina delloo ay waxam wax na ko ne wax nañ ko rek waaye wóorul kenn yàlla rek ko xam am na nag ñu bëri yoo xam ne suñu borom doon ko xam moo ko jagoo waaye comme maraaxil la diggante bi kenn taatu kenn ñi fekkee ëttu buft bi ñi fekk déewu bi woon rek la jàppoo ñoo ko jàppoo waaye ñi faatu woon seen yoon nekk ci bu ñu nekkee nag juróomi béréb yi yan bi saa sama ndax kenn ci dal kenn foofu la doomu aadama yëpp bokk ba tey bokk